Dakar maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant permettez-moi de remercier le m parce que tout simplement ñoom wane nañu ne fi mu toll nii benn objectif dong lañu am mooy sauver démocratie Sénégal sauver démocratie Sénégal dafa taxaw ci. fexe ba kàddu yi nga xam ne Barthélemy wax na ko léegi moom Macky Sall li wóor mooy mi ngi ñuy dégg et ay ndawam ñu ngi fii di yëddu nañu jàpp ne lu mu leen jaral ci ñu song usmaan Sonko dana nu ko jaral ñun aussi pour ñu jëflante ko ak ñoom li am solo du nit ñi encore une fois li am solo c'est pas les personnes c'est la démocratie sénégalaise li ñu taxaw di xeex mooy kenn bañ a noot démocratie Sénégal et loolu yéen da ngeen ci am part de responsabilité c'est pas l'affaire des politiciens c'est l'affaire du peuple kon encore une fois jóg leen boole leen seeni doole jàkkaarloo leen ak kii nga xam ne au moins ak lu ko nit mun a waxal moom Macky Sall lép lu mu wax lépp lu mu mat bëgg na mu dakk mais danañ ko wan ko ñun ñi peuple bi ñun ñi ko fal ñun ñoo ko gën a taxaw ñoo ko ëpp doole parce que fi mu nekk ñun ñoo ko fa teg l'autre message l'autre message et j'en pour waxtaan ci ak waa M2D yow xam nga rôle bi ma joué ci lu taxawal m 2 Sonko dañu ko song bëgg ko néewal doole et loolu encore une fois duñu ko nangu ci kenn maintenant maintenant l'autre facette de la bataille mooy ni ñu def ba booloo ngeen fexe ba élection yii ñu wax ne ci lañu jëm dana ko def ou du ko def li wóor mooy am nañu caay-caay goo xam ne mën nañoo xëy ne la ginnaaw suba dañuy élection kon xottiku bala ngay lakkale je crois il faut ñu boole doole yi ma ki Sall ak benn Bokk Yaakaar il faut pas qu'on se voile la face rapport de force la ñu xam doole lañu ñu xam li fi xewoon en 2017 ku nekk ci yéen mu ngi koy fàttaliku ay nit ñoo taxaw ngir seeni i égo tasaaroo waa benno continuer seen liggéey nekk bennoo jël assemblée nationale donc il faut encore une fois ñu boole doole yi il faut qu'il y ait une synergie des efforts pour que ñu mën fi jëlee ñii fi ne ci élection locale yi ñu jëm vous la jeunesse da ngeen ci am part de responsabilité bu leen nangu ñu leen di def ay faire valoir bokk leen jóg leen il faut relever le défi de la participation des jeunes ci élection locale yi ñu jëm jóg leen bokk ci ñiy bindu ji ci liste électorale yi Barthélemy on en a discuté plusieurs fois il faut nga jóg sol sa dal pour que dem gis kenn ku nekk ci ñu nekk ci opposition pour que ñu doon benn bu fekkee bëgg nañu fi jëlee waa Benno Bokk Yaakaar seen la dispersion la dispersion des forces de l'opposition encore une fois moom mooy dooleel waa Benno Bokk Yaakaar kon il faut ñu nekk benn doon benn bu fekkee ne bëgg nañu fi jëli ñii fi ne te ku ne xam nañu Sénégal sonn nañu am na suma benn yaay bu ko wax léegi